ayca jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di amaan mbégte jàkkaarloo waat ak yéen seen seen leader bi di people 221 di nuyu kilifa diine kilifa day di ñaanaat réew mi di Sénégal yàlla na fi sunu borom dolli jàmm ku ne nag gis na tey ma dalal ndaanaan muy di alaaji këccëb Boucher këccëb nekk koo xamante ne influenceur la ci li mu nekk nekk koo xam ne it aussi mu ngi bay waaram ci yoonam fas yéene Cheikh moom waxtaan ku ne gis na ni gëjoon nañ koo gis mu toog di def émission te fan yi coow li bari na lool am Boucher indi Boucher toog muy dox toogul mu dox fas yéene Cheikh moom waxtaan Boucher maa ngi lay nuyu mon frère. maa ngi lay fay mon ami guy gi maa ngi lay charré bu baax di la bëggee di la jox sa wàccuwaay. jërëjëf di kontaan ci yow di la ñaanal jàmm di la ñaanal tawfiix tey siir xaadimu rasul di ko ñaanal kilifa diine yeeg kilifa aada yëpp. di ñaanal ñëpp jàmm. di ñaan senegal yàlla na fi jàmm yàgg di ñaanal sama yaay di ñaanal sama pàpp di ñaanal sama njaboot ñëpp fekkee ma fekkee seen njëriñ. ñoom itam yàlla di ma dimbali ba ma leen di sagal di leen suturaal fu ne. ba pare teg leen ci bon condition. di ñaan Sénégal jàmm yàgg fi. ci bitik Boucher daa mel ni fi mu toll nii da nga ne ci wàccaay korite beeg soxna si daa mel ni ci Baye Modou laa la fekk ah. nga ne ci wàccaay jël si nii. moom samay ñaw ñaw naa ko pare. waaw waaye ñawu madame yi laa doon jël si. Mm-hmm. nag boo fi rombee bëgg maa jël. dëgg la. <laughs> mënu ma la koo bañal. dëgg yàlla xam na ni damaa waaye danga maa romb rek. dëgg la waaw. ñaan ma émission. fekk nag. wax ji bari na te bëggoon naa wax sax waaye xam nga man bari wu wax ci internet lu ma bëgg a wax sama téléphone bi laa koy waxee. waaye mënut a ñàkk. dëgg la sama waay moo tax ma ne dinaa la ko may. dëgg la sama waay nga am na solo Boucher naka nga jàngate élection yi parce que gis nañu mu nekk ay élection yoo xamante ni ñu bari liñ doon xaar ah yi du am élection yi day am xeex élection yi nii ak nii mais ñu jékki-jékki élection yi jeexee premier tour ak fair play ak jàmm ak salaam nga ko jàngatee. waaw ginnaaw bañ sant yàlla tamit loolu dañ ciy sant bu baax di ñaan yàlla muy continuer nii chaque jour ndax Sénégal jàmm rek a fi xaj. Mm-hmm. te Sénégal doon na réew moo xam ni lu dul jàmm rek waru fee am. Mm-hmm. ndax Sénégal dëkku diine la dëkku lislaam la dëkku kilifa yu mag yi la. Mm-hmm. ba pare dëkk la boo xam ne ràññee nañ ko ci dëkk yi ëpp jàmm ci àdduna. kon tey dañuy ñaan yàlla ni mu demee nii noonu rek la mënoon a demee. ndax Sénégal moom ku koy bëgg a taal ay tàkk. ku fi bëgg indi problème yaa koy am. ndax Sénégal réew jàmm la réewum salaam la. taw feex rek nga am. moo tax mu demee nii. ñu gis bi élection yi jeexee premier tour ñëpp doon xaar deuxième tour day am mais ñu gis Amadou Ba mu def geste bu noble muy geste grandeur génn félicité ki nga xamante ni moo di président Diomaye dalal xelu sénégalais yu bëri aussi tamit. dégg nga ma ñu gis ni bi loolu amee président Amadou Ba def geste bu noble parce que ñëpp a doon xaar deuxième tour wala muy posé waat mais dafa génn félicité ki nga xamante ni moo di euh, président Diomaye. mais loolu moo ko war ndax c'est une geste grandeur ba pare tamit àdduna booy jongante ñu gañe la da ngay nangu fair play àdduna ñëppay fair play. Mm-hmm. sénégalais rek yenn saa yi moo dul xam fair play. Mm-hmm. Sénégal yenn saa yi moo dul nangu defet mm-hmm. waaye nit ki nag boo xamee ni gañe nañ la liy war mooy nga jéem a génn jéem a njëkk a nangu balaa kenn di nangu pour jàmmam. ndax moom tey mooy leader bi bu nanguwul woon rek amaana ñu ne ci ginnaawam du ñu nangu. Mm-hmm. te bu boobaa mun naa jur dara. Mm-hmm. te bu boobaa responsabilité bi yëpp si ñoom la. Mm-hmm. moo tax bu génnee nangu rek ñëpp dañuy nangu. waaw ñu gis euh, bi élection yi jeexee tension bi bari polémique bi bari ñu cité ci yow yàgg say njooñ ko ci mel ni Fadam ak ñeneen ak ñeneen. ay vidéo yoo xam ne yéen a ko doon def di influencer ndaw ñi ci ki nga xam ne moo di seen i leader ñu bari ŋàññi leen ci daan ni ndax ñii ñi ngi xalaat tey ñi nga xam ne dañoo dee ci dëkk bi ñi ngi xalaat Ousmane ñu taal waruñoo ànd ak li nga xamante ne ñooy population bi mais xaalis warta tax ñu dem di ànd ak ñee ñu bari di leen ci taf di leen ci ñi naka ngeen jàngatee vidéo yooyu. waa ku nekk ak sa xel ak ku nekk ak sa xalaat waaye ñun li ñu ne démb ak tey bu doon suba moom la ñuy nekkaat ndax gis nga nit ki looy def di ko ragal rek daa doon woon dëgg ci yow te ku nekk am nga droit far fu la neex ñun ay kaana lañu ñun fi ñu juddoo yaroo fa màggee fa nii fi ñu yaroo nag fi nga xamee ni fa lañ xamee mbaax ñooñu ay dëkku dëgg la. ñun États-Unis lañ defee suñu lépp yaroo fa jàng seen métier jàng seen mbir jàng seeni technique. Mm-hmm. ni ñu jàngee seen technique nag mooy time is money. Mm-hmm. time is money nag bu nekkee sa bopp bi yow ci dëgg rek ngay dox. Mm-hmm. moo tax ñun nguufaan ñu wala jaay ñu dara luñu ñu saf yombul. ci lu ñu nekkoon démb ci la ñuy nekk tey li ñu nekkoon tey ci lañuy nekk suba di ñaan avancement. moo ñu sonal amul benn doomu aadama bu ñuy fay naan ñu waxal leen ma ci loo xam ne du dëgg. amul benn af doomu aadama bu ñu mën a jënd mënul am man Amadou Ba benn yoon laa ko mës a gis su ma juumul législative la woon élection législative yi. ma gis ko këram snap def ay mbir ak jabaram topp ko ci campagne yooyu ñetti fan xaw ma ñeenti fan. jabaram laa doon nekk moom benn yoon laa mës a ànd ak moom gis ko bi ma ñëwee daf ma doon jox paas ma ne ko baax na barke Serigne Touba Xaadimu Rasuul musuma lekk xaalisam xaw ma nu xaalisam mel. Hmm. billaahi wallaahi tallaahi damaa wóor. ni jomaay juré barki démb ñëpp gëm ko noonu laay juré barki Seydina Muhammad billaahi wallaahi musuma lekk xaalisu Amadou Ba. Hmm. xaw ma nu mu mel xaw ma nu mu mel. musuma taxaw ak Amadou Ba mu yëkkati xaalis jox ma paas la ma fi doon jox législatif ya paas xooluma sax xaalis bi dama ne ko papa billaahi wallaahi taalaay teel lii. lii boolewuñu man li tax ma dugg ci yow xam naa ko barki Cheikhul Khadim te loolu moo ma topp ba tey nii muy Lat Diop man Lat Diop laa gëm. waaw sa digganteeg moom. man gëwuma politique man duma politique. mais lan moo la lan moo la lan moo la poussé ci Amadou Ba nga rejetel ko loolu ànd ak moom lan nga gis ci. Amadou Ba jox loolu législative la woon. waaw mais élection yi yëpp gisuma ko. waaw législative balaa ko gëj a teg bët laa la wax. Mhm. élection yi yëpp teguma ko bët gisuma ko tooguma ak moom mhm. ànduma ak moom. Mhm. élection légis élection présidentielle yi ku ma gis maak Amadou Ba rek génneel vidéo wala nga wax ci. wala ma nekk ak moom. jegewu ma ko taxawu ma moom parce que loolu ñoruma. man Amadou man Amadou Ba nekk président nekkul président loolu ñoruma man xamalam moom ma ñor Lat Diop di nekk ci jàmm. Lat Diop ki mu àndal di am ay ndam. man Lat jóob moo ma ñor tey Lat jóob suba suba suba bu demoon ci Jomaay wala mu dem Sonko ma topp ko topp ma kenn ci politique moom laa ci topp moom mooy sama leader parce que mooy sama xarit mooy sama nit moo ma yëg moo a bëgg moo ma fonk moo bëgg géejawaay bi ma juddoo yaroo fa samay maam ak samay maamaati maam ñëpp nekk fa ma gis ni mu def géejawaay gis ni muy dimbalee doomu aadama ma gis xolam ni mu mel mu doy ma convaincu ma ma jàppale ko. mais man buuse ba woon ba tey. imaginer kañ laa siiw kañ laa nekk leader kañ laa nekk nit ku àdduna bi di déglu ba tey maa ngi soog a nekk ci politique. parce que kenn mënu ma woon convaincre. kenn mënu ma woon dugal ci politique. mais bi mu ñëwee laa xam ni kii waaja man nag moom lu mu bëgg laa bëgg lu mu buggul bëgguma ko Amadou Ba tey bu nekkoon président soxlawu ma koo teg bët soxlawu ma koo jege lijjantiwu ma sax côté boobu. noonu laay dundee mais Lat Diop day nekk ci jàmm lu mu bëgg man dama koy bëgg ci lu mu ne dama ciy xare. mais sa diggante yàgg Lat Diop polémique bi bari ci torop depuis que ngeen demoon kan ba ñu demoon jongante ji yàlla def li gën ñu gisaat ni nga teel ko fi ay dàllam polémique bi bari mais à chaque fois boo génnee da ngay gën a dëggal sa diggante gën a feer ci moom. seen diggante yéen ñaar. bu subaa bu joraatoon ay dàll ma tee ko lekk ko bu gannaaw subaa bu faraloon ak Amadou Ba ma daw farak Amadou Ba bu faralook Amadou Ba faraluma Amadou Ba. Lat Diop kese rek moom mooy sama leader ci politique fii ba àdduna du tukki laa la wax. mooy sama leader nii moom laa xam ni moo ma convaincre ba keroog mu may wan leneen su ma wanee leneen nag xayrun waaye lu ma wan nii mooy dama koy jàpp ba àdduna du tukki. te lu mu bëgg bëgg naa ko ci lu mu ne nee naa ci. man Amadou baax barke Serigne Touba laa la wax koor gi lañ ne li ma woor yëpp bu dee li ma wax du dëgg yàlla nañ ko jël jox ko yéefar yi barke alxuraanu karim mosul yëkkati xaalis jox ma sikkuma ko moom mais nag nit doo nekk lu luñ la wax rek ngay tontoog def ay mbir amaana yàlla sunu borom chaque jour ñu lay waxal lu baax sax arrangé wu la yow da ngay bàyyi ñu lay waxal lu bon pour muy jël lu baax di la ko fayee. ndax man parce que ñu bari li ñu wax mooy que ni yéen yéen ay influencé ndaw ñi te fi nga ñëwoon ndaw ñi seen intérêt personnel moo leen fa bàyyi. mais nekkul loo xam ne nii intérêt réew mi la aussi. waaw fii àdduna nag ku ne sa sa intérêt ñoom ñii kii sax seen intérêt lañ doxal ñu fii ku fi wax sa intérêt la fi doxal. Mhm. sa intérêt moo la fi tax a fii kuy wax ci àdduna sa intérêt la fi tax yaa ngi yaakaar ni lii bu ma ko defee après lii mën na ma cee jural. Hmm. ñox ñoom li ñu doon xeex yëpp yëpp mooy ñoom seen avenir ku ci ne. sa avenir yow ci diw la ne foofu nga ko teg léegi ñoom ñooñu kon lan la ñuy xeex dañuy xeex nii rek pour bañ cee jëriñu. Hmm. dañoo xam dëgg. dëgg la ñoom ñëpp lu ñuy xeex mooy ku ci nekk. Hmm. pour moom pour seen leader boobu toog tey yàlla na ko yàlla jàppale ci lim ne. moom réussite am mooy ñoom seen réussite. kon ñoom seen seen seen intérêt moo leen tax a jóg seen intérêt la ñuy xeex. àdduna fii kenn doxu fi intérêt kenn. guy gi ñii nga ñëwee jël ma nii sa intérêt moo la fi indi. ndax sa YouTube bi dox nga bëgg. dëgg la man sama intérêt yi tax may wax ndax bëgg naa li may wax ñu dégg ko xam ni dëgg la. dëgg la kon ku nekk sa intérêt lay dox. faral Sonko seen intérêt leen tax a jóg. Mm-hmm. parce que ñoom ñu ngi yaakaar ni bu Sonko toog ñoom seen affaire dina baax parce que réew mi dina dox ñoom dinañ naat. Sonko tamit bu toogee moom dina xam ni intérêt mooy mu jàppale jeunesse bi jàppale réew mi moo tax mu toog. Hmm. ku ci sa intérêt la. Hmm. d' accord mais bi loolu jeexee ñu gis sénégalais yu bari aussi tamit foofu la polémique bi commencé indi ah commencé génn naan léegi toog muy dox amatul yor sa sinap di wër di wax amatul ah. ñu cité ci yow ak sa doomu ndey Fadam que ni léegi daanaka nekkatoo leen ci toog muy dox da nga doon dem kër ministres yi wala kër yi di wax ah dañuy leen jox xaalis léegi loolu amatul bi nga déggee kàddu toog muy dox te ñëpp nag yow lañ ci cité yow ak Fadam te seen i photo jël taf leen. waaw loolu santaat yàlla la téeméeri nit ak ñu ngi ci dëkk bi di wax ku nekk ak sa waxi bopp ku nekk ci li ne waaye man lañ ci ciblé ak Fadam loolu sant yàlla la ak ñaan waajur ndax yàlla bu la tegul nenn li rek kenn du la teg fenn fi te bu ñuy wax ci yow rek ni nga mel a tax ñuy wax ci yow waaye yàlla dogal na man maa ngi nii télé laay waxee lii télé la moo raw télé mm-hmm. téléphone téléphone bi ñëpp ko seetaan Lat Diop kese laa am xarit ci leaderu politique. Hmm. billaahi wallaahi taalaahi xaw ma kër ministre. xaw ma benn kër ministre xaw ma benn kër président xaw ma benn kër député Lat Diop kese kese kese kese kese laa am ci gouvernement. rëy rëy rëy rëy rëy rëy rëy Lat Diop laa ci am. Hmm. man Boucher. ministre wala président wala ñoñom bu ma gis ma ànd ak moom dem ci këram di ko seeti wala di ko wax sama soxla man na ay doomam génn wa alay njabootam. Lat Diop laa am mooy sama leader ci politique li muy rëy rëy gouvernement li muy rëy rëy rëy rëy laa ci am léegi Diop mun nu maa defal li ma guy gi man ba may tabax kër xaw ma Lat Diop ba may tabax kër xaw ma état dëgg la guy gi man ba may tukki yàlla di ma teral fi ma jaar ku fa jaar takk ban. dëgg fi ma jaar ku ma jaar takk ban nañu dem marché njaareem laajte kuy boucher bi ma nee bërit doon xale dama jóg am jom di liggéey plombier di liggéey mécanicien liggéey naa soudeur liggéey naa menuisier liggéey naa ŋàcc foos ba dugg ci biir foos bi. waa géeja waaye ngi may dégg ñëpp yaakaar ni dee naa barke Seexul Xaddim dugg naa ci foos ñëpp yaakaar ni dee naa foos bu rëy quartier Cheikh Ngom te ne laay waxee ñëpp ñi ko fekkee ñi ma yar yëpp xam nañ ko bi ma duggee ci foos bi yàlla def ma ñu génnee ma mhm. ma génn nekk samay mbir bi may liggéey bu ma liggéey plombier doxul ma bàyyi liggéey mécanicien doxul ma bàyyi liggéey soudeur tooguma ci benn métier parce que man loolu laa xam damaa xam lii bu ma ko laalee doxul wala muy waaj a jeex ma laal leneen xawma toog fenn à vie parce que xale laa boo xam ne damay ñam di ñamaat mm-hmm. bi ma jógee foofu samay mag ak samay nijaay ak samay papa dañoo nekk Gambie man Gambie def naa fa eight years eight years muy huit ans may liggéey fiita Gambien yi xam nañ li may wax mooy mécanicien di liggéey Mansour Trading Mansour Trading laa doon liggéeyee ndaa Jaamaan Talinding may liggéey foofu fii te di jaayaale parts parts mooy ay bagage u mécanicien noonu la ko Gambien yi di woowee. Mhm. ma dëkk Lancaster Tabacorute Banjul biir Banjul di jàngee Crab Island bi ma jàngee Crab Island ba mu neex damaa dem ñibbi baakoote sama kër papa di fa fanaani toog fa di roose ay fleur di leen defaral seen kër gi sama papa Aliou Camara mi mooy dégg sama papa Modou Camara mi ngi may dégg reyante sama live man ñi ma xam kenn yabu ma ku ma xamul rek moo may yab bi ma reyantee sama live ba bëgg tukki dama ne man bunt bi ma mën a jaar xam naa ko ci laa ñibbi si ci làmb ji wut tur di ànd ak guy gi maa ngi koy nuyu bu baax télé bi mu taxaw ma ñëw buuxanteek moom tele bi feeñ stade bu mu dem ma rayante ak mbër yi jaayante ko ak ñoom pour siiw chaque dimanche ma dagg 10 kilos yàpp yóbbul Bécaye mbay pour mu may tudd. saa yu ma ñëwee làmb dimanche jox ipongaari ak ñoxobaay ku nekk 5000 wala 2500 pour ñu may tudd ma boole kook jaay yàpp ñu tuddee ma boucher. boucher bi jaay yàpp la may ànd ak sama benn xarit gaañu na. Oh. yàlla ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana laay mu ndaw. ray nag chaque quatre heures du matin ma yeewu dem marché njaareem ray fa lu mat ay six nag huit nag bu ma rayee nag ba pare dañ may fay loolu ray bi dañ may fay nag cinq mille buñ ma fayee nag cinq mille ba pare dañu may fayaat nag quatre mille pour ma yenu nag yi devant yeeg épaule yeeg lépp dama koy yenu yóbbu ko ci table ba pour ñu mën koo tracé jox ko yeneen jaaykat yi. chaque jour chaque jour ka jëfee quatre heures di matin laa doon yeewu moo tax ñu naan bouse énergie bi man amatuma nelaw ci àdduna. man damay guddee tëdd teel la yeewu ma doon rey ay nag di ko fees di ko yóbbu sama xarit bi bi mu gaañoo. Mhm. sama yaram mayatuma. Mhm. noonu laa mel ni ma meloon noonu laa mel ba tey looloo ma topp. combat nees guy gi la. waaw sama xarit bi mu gaañoo déedéet. Papa Sow ma Mandione. Mhm. la gaañu la la première la woon première premier avril. après nees guy gi. waaw ci ci ci sarax bala ci nga ñëw ci répétition ba sarax ba la woon nees guy ñu pare ñu bëgg ma ñëw eggali liggéey boobu yaayam bëgg ma liggéey ko ma ne ko mënatuma koo liggéey. fii saa ma fi taxawee sama xel ci laay mu ndaw lay dem man moo nekkoon sama patron di ma fay. ci laa bàyyi yàpp bi concentré wu ci làmb ji indi bruit wi am coow maag alaaj mbay coow lu na kur coow day jeex tur day jeex lii yëpp day jeex yaa may dégg. Mm-hmm. ma ñëw jël. sama li ma am ci ay kayit ak ay papier ak ay presse book dëbbal ko ambassade ñu may ma visa ma dem dërëmu kenn dugg ci ñaar dërëmu kenn dugg ci daraay kenn dugg ci man maa wuti visa ñu may ma ma ne fees dem bi ma demee may rayanteel sama bopp entreprise bu mag biir États-Unis maa fa doon liggéey New York 116 ñëpp xam nañ ma man maa doon joxe liggéey di liggéey di sa raxas naa bool xotti naa carton. Oh. yaa ngi may dégg defar naa ay lekk pour ay malaad ndax liggéey naa ci hôpital liggéey naa serveur yóbbu lekk loolu moo waral tey ma am inspiration pour ubbi restauration yaa ngi may dégg sa di serveur ma koy liggéey di def food runner food runner mooy ñiy jëlee lekk yi ci kaw kitchen bi ci waañ bi di ko indi di ko teg serveur yi di ko jël di ko teg loolu yëpp liggéey naa ko liggéey baas booy ñi nga xam ni tey bu ñu lekkee bu nit ñi lekkee pare ñooy jël palaat yi yóbbu ko ca waañ wa oh. ak ñi nga xam ni tey bu ñu indee ca waañ ba ñuy liggéey dishwasher liggéey naa ko restauration loo ci xalaat liggéey naa ko may dem di dem di dem yàlla dimbali ma ndaanaan du yàgg àll amoon naa tur fii ma exploité tur boobu nataan attendant Amérique di ko dekkilaat ba nit ñi joxaat ma sama tur boobu mm-hmm. ma ñëw fii benn vacance pour am un mois bi ma ñëwee vacance dan naa ñëw vacance di ñëw vacance bi ma ñëwee vacance ci laa ma yàlla booleeg ay nit ñu ñu may jox ay sponsor di ma jox ay publicité artistes yi bëgg ma di ànd ak man fépp ci àdduna je suis le seul artiste buy ànd ak Youssou Ndour di ànd ak Pape Diouf partout dans la monde di ànd ak Viviane partout dans la monde di ànd ak Kumba Gawlo partout dans le monde di ànd ak Aïda Samb partout dans le monde. Mhm. Sidi Diop waxaale wuñu ko. Mhm. léegi man je suis le seul influenceur buy def loolu. man président li muy tukki ci at bi man damay tukkilu ko ëpp wala mu jege ko. parce que yàlla defal na ma loolu. Mhm. ma góorgóorlu nag Amérique ba am passeport bu àdduna bi yëpp teg seen bakkan bi teg ci seen bët bi bëgg ko ay nit ne fa téeméeri at amuñu ko loolu benn liggéeyu ndey weesuwul loolu. ndax ba ma fa toogee matul quatre am naa ko. passeport bi. liggéeyu ndey am naa ko loolu liggéeyu ndey weesuwul loolu ak njub mm-hmm. ndax américain balaa mu laa jox kayitam da ngay jub. Mm-hmm. di benn tâche mais du la jox këyitam kon man jub naa doon naa ki ma doon ba yàlla dimbali ma defal ma loolu ma góor góorgóorlu nag ba jàppale sama njaboot yépp samay njaboot amul kenn ku ci mënta tukki fii may wax ak su leen neexoon ba ci sama doom bi gën a ndaw. bu ko neexoon nii léegi léegi léegi léegi partout dans le monde lay añee bu ko neexee Angleterre lay añee bu ko neexee Amérique lay reeree bu ko neexee France lay ndékkee ñoom sa amul ci kenn ci sama njaboot koo xam ne dina toog bëgg tukki du tukki te soxlawul visa ci kenn yàlla def ma liggéeyal leen lool ma ñëw fii am ay sponsor guy gi li ma original di fay par weer bet di ma ko fay par weer Laalia di ma ko fay NMA Sanders di ma ko fay sama quatre sponsors yi rek rek rek rek rek rek nii li ñu may fay parweer man rus naa la ko wax ci télé. billaahi wallaahi tallaahi guy gi kenn ñaanul yàlla nekk ci lu metti ba xëy dee. da nekk ci mbir. yàlla dimbali la nga gis leneen. yàlla dimbali la nga gis leneen. Mm-hmm. tey jii fii ma toog nii borom place bi emprunté la woon. Mm-hmm. bi mu demee da doon def da doon liggéey ñu koy fay mais léegi moom moom place boppam di ñaw dem na ba ñawatul day toog ñu koy ñawal muy fay ñu koy ñawal. waaw mais man tey téer yi bari léegi ñawatuñu. Mhm. maître téer yu mag yëpp wala maître euh, soudeur yu mag yi wala mécanicien yi liggéeyatuñu dañuy ñëw toog parce que yàllaa leen dimbali ñu wut ay employé mhm. di toog di leen jox oto yi ñuy liggéey ñu leen di fay ñoom dañuy toog fi ñu toog. booy yi liggéey ba pare ñu ñëw jox leen xaalis bi ñoom ñu jox booy ñoom taqatuñu sax iwil mm-hmm. loolu yàlla moo koy def ci nit. dëgg la léegi man yàlla bu ma dimbalee ma doon rayante Amérique di rayante di dag lu met di yeewu quatre di du matin dem ba yàlla dimbali ma jox ma continue boo xam ne nit ñaa ngi may seetaan. Mm-hmm. lu ma publicité mu siiw artiste buy dem yóbbu ma. te balaa may buuse Pape Diouf rek laa la wax ñi ma lim yëpp moo ma moom laa mayul moom laa may ñàkk a waxaale. Kumba Gawlo mosuma dégganteeg moom téléphone. Hmm. barke alxuraanu karim. événement bi ngay couvrir yëpp. mosuma dégganteeg moom téléphone mosuma dem këram Kumba Gawlo bu ma soxlaa ay kiyam secrétaire ma yooyu ñoo may woo ma waxaale ñoom di nuyu Yacine au passage mu fay ma prix bu mat sëkk ba ba ñuy dem Mali dafa may fay lu wóor balaa may bouger mètre Viviane balaa ñoo dem laay moo may woo waxaale man. ma wax ko prix bu wóor mu fay ma ko ñu soog a dem hôtel nag cinq étoiles nga may laal balaa maa buuse maître <laughs> yaa ngi may dégg. waaw euh, Aïda Samb jëkkëram sama xarit la sama lépp la moom balaa maa ñëw pare na sama lépp. Mm-hmm. yaa ngi may dégg. waaw Pape laa mayul waxaale. kooku aw mu lu may waxaale moom te li ko war ci man yëpp mi ngi koy def. Mm-hmm. fu ñu dem daf may wutal sama contrat bopp ba pare wut contrat boppam. Mm-hmm. guy gi léegi man su ma liggéeyul kan mooy liggéey. dëgg la de parcours nga teg de. léegi man su ma liggéeyul man. ku liggéey. dëgg la de. ah dëgg la de. nañu waxante dëgg rek su ma liggéeyul man li ma la wax nii yëpp su ma liggéeyul kan moo liggéey man fu ne nii chaque weer laa la wax chaque mois ay vidéo rek laay def original nananana sunu bet nananana di dugal loolu yàlla moo koy def ci doomu aadama ñi ko bëgg bari nag léegi man li may dund nii yëpp maa ngi koy ñaanal ñi naan ma toog muy dox maa ngi leen koy ñaanal ñoom ñu dund loolu ñoom maa ngi koy ñaanal ñoom contrat yooyu yëpp mën naa la ko wan nii léegi léegi benn par benn ma si démb gis naa ko gis nga contrat bi ci gën a ndaw un million cinq cent la chaque weer bi ci gën a ndaw un million cinq cent la chaque mois bi ci gën a ndaw te maa ñett wala ñeent minimum bokkut ak fii dafa tàng waay bokkut ak mm-hmm. bi ma Pape juuf di yóbbu bokkut ak bi ma Viviane di yóbbu bokkut ak bi ma kenn di yóbbu mm-hmm. kon su ma liggéeyul koy liggéey d'accord mais baatu toog muy dox noo ko jàngatee parce que ñu bari li nga wax tey am na ñoo xam ne dina leer seen côté ñoo xam ne carrément Snap bi yow da koy def pour publicité Snap bi da koy def pour liggéey mais ñu ba dañu yaakaaroon ne Snap bi mm. yow ni nekk genre sàmbay mbayaan mooy diw yaa baax diw euh, naka ngay dundee baatu toog muy dox parce que ñu ba dañu leen da nga ñu xëy yor seen téléphone rek di wax diw yaa baax diw yaa baax waaw loolu mooy ñi nga xam ne amuñu xel man ni ma koy defee noonu laa koy mës a defee ci àdduna parce que man dama xam valoriser doomu aadama damay nangu lu yàlla dogal mm-hmm. man boo ma yóbboo Viviane bu ma yóbboo dama naan ko yaa fi mën kenn du yow yaa daqaway mhm. barke Serigne Mbamba yaa mën a sañse yaa lii yaa laa mhm. c'est moom laa yóbbu pour jaay ko su ma Coumba Gawlo yóbboo fàtte naa Viviane maa ngi ci Coumba Gawlo je mhm. travaille su ma Aïda Samb yóbboo fàtte naa Coumba Gawlo ci lu mu ne maa ngi ci Aïda Samb ki ma yóbbu moom laay produir moom laay yëkkati ki ma yóbbu moo fi gën moo mën ñëpp ki may fay moo gën ñëpp. Mhm. ba keroog mu oh. may suñu contrat jeex. mu mhm. nekk ci leneen. d'accord d'accord d'accord am na solo mënu woon a ñàkk ñu ñëw ci baat toog muy dox mais dañu gis ni baatu toog muy dox bi yamatul ci yéen dong mais dañ ko dañ dafa mel ni léegi dañ ko généraliser euh, maa ngi gis sax sunu papa euh, Khadim Samb maa ngi gis alaaji Mbay Peex dem na sax ba ci alaaji Mansour kàddu yooyu noonu ñu dem ba koy adressé leen mag ñi naka nga ko jàngatee. waaw loolu Sénégal la rek Sénégal moom bàyyiwuñu kenn mais ñi mënta njoowaanu rek ay xas ñi njoowaanu te àdduna nag moom ku yàlla teral a fi am waaye ku la ku yàlla yërëm boo dee la te ñoom nag Sénégal moom ñoom ku ñu yërëm ci ci àdduna la waaye ku ñu ku ñu ku ñu ku ñu teral boo dee la ñoom dañuy bëgg di la yërëm fii ci àddina waaye boo dee lañ lay bëgg a teral hmm. liñ lay teralee nag mooy ak a baax xoolal bun Abdallah Dione barki dem kook luñ ko fi waxul amul hmm. mais bi ma gisee ay commentaire am man tuuti ma damaa bëggoon dee ci saa si man hmm. bun bi ma gisee commentaire yi ko sénégalais yi doon commentaire al bi mu dee man dama doon ñaan dee man tey ne man tey vraiment dee ñu waxal ma lii man <laughs> te lu ña demal nga xool ay commentaire am deux mois ci ginnaaw lu ñaaw lu ne teg nañ ko ci deram bi. bim dee barki démb ñu ngi koy jaale mbokkam yëpp xoolal commentaire am yi. doo bëgg lu dul dee. Mm-hmm. pour ñu commentaire la lool. Mm-hmm. kon nag Sénégal du réew moo xam ne dara war na la fee frustré wala mu lay wala mu lay wala mu lay yàqal. mais noo ko dundee yàq sa njaboot yàq sa famille parce que des fois nga si commentaire yi ñu naan kii li ah, li muy joxe soxnaam ah, nañ koo xool kii li muy lekk oto bi muy dawal ah, day wayaan <laughs> par rapport ak sa famille. noo sama jabar day commentaire yi koy dajji di man sama jabar bu la neexee nga préparé wuñ lii. waaw woo ko <laughs> la neexee non non bu la nee nga woo ko une nga xool moom commentaire yee koy dajji commentaire moo may jàpp naan ma daayee eh, daa kii kii waa daayo kii neexul. dari la waaye yow daaye ki moom looloo koy dundal parce que tàggat naa ko ci. Mm-hmm. sama jabar barke Serigne Touba Xaadimu Rasuul loolu moo koy féexal day yàkkamti ma def vidéo ba mu dugg ci commentaire yi looloo koy dajji. Mm-hmm. naa ko ci wan naa ko nan la ñuy nekkee ak ndaanaan. wan naa ko nan la ñuy nekkee ak kilifa xam na ko ba loolu yëpp dara safu ko ci. Mm-hmm. li ma waraloo moom rek moom waraloo moom maa ngi nii ay yéreem laa jël si. dëgg la waaw dëgg la d'accord am na solo ah euh, Boucher ñu jékki-jékki dégg benn rumeur plainte mu doxoon sa diggante ak ki nga xamante ni moo di Bou Siteu ak euh, Ablaye Sall ak ki nga xam ne moo di Macha lan moo poussé woon nga dem ba parce que yaakaar naa man deux fois laa mos a dégg buuse pelante te pelante yi moom man su ma ko déggee dama naan leen na na ko buuse di pelante noonu la ko buuse di retiré waatee. Mm. bii dañu gis ni nga dem ba sës lan moo la poussé nga dem ba euh, dugg foofu noonu ak ñoom. waaw buñ ma saaga woon ndey du ma leen pelante ndax sama yaay fi mu fi ma ko war a teg teg naa ko fa. Mm. li ma ko waral defal defal naa ko. ba may tabaxal sama papa ak sama yaay kër du tey ne leen dëkk leen mm-hmm. kër gaa nga rafet yéeg ca kaw doog a jublu ci sama bopp yóbbu naa sama yaay Makka teral ko. maa ngi fa woon. sama yaay ñaanal na ma. sama kanam bay jooy. sama papa gërëm na ma. Mhm. sama papa gëmewu ma. te nit ku ne kuy dund ci àdduna ñaanu yaay ngay wër ak baay. dëgg la man am naa ko ba mat sëkk. lijjanti naa ko. Mhm. fexe naa ba am ko. loolu moom fexe naa ba am ko moo tax ñeew ma kenn. Mm-hmm. ndax Serigne Touba dimbali na moom am ñaan waajur. Mm-hmm. te loolu la nit yëpp di wër. dëgg waaye àdduna dafay toll foo xam ne nit da ngay reculer tuuti pour mieux sauter. Mm-hmm. te man boo ma saagaa ndey baal naa la boo ma xasee baal naa la dunguru la baal naa la. mar bun xaw ma yi ñuy wax yoon <laughs> baal naa la coggu la baal naa la <laughs> yooyu yëpp xam naa ni man àdduna lu neex ba sama parcours doomu aadama def ko ci réew mi ndax loolu benn xale sawarateeku sa sawareetul noonu sawar mm-hmm. wala ki bëgg a mel ni man rek moo may waxal loolu mm-hmm. waaye man xam naa ki ma doon te nag senegal gii mosoo fi dégg ni buusee fi wax lu ñaaw wala buusee fi def lii wala buusee fi sàcc lii wala buusee fi jaay drogue bi wala buusee génnee ay taatam nii wala buusee fi wor kii wala moo fi def lii. Mhm. sant naa yàlla aw ma xas boo xam ne man ku ma gis day sëgg. Mhm. su ma génnee ci mbedd day mel ni maa ëpp soppe ci àdduna. Mhm. ndax man sama oto mënu ma ko gaar sax fenn fu ma taxaw day fees del su may dox nit ñi dañuy daw di ma songu saa yu ma xëyee maa ngi jël sama teraanga dimbali doomu aadama yi. kon nit da ngay xool ca kanam waaye doo xool ca ginnaaw. Mhm. li tax ma plainte bu Siteu Macha jotuma ko plainte daf ma woo baalu ma génn def sorti mhm. bu li tax ma plainte ko mooy tuuma dafa doy waar su doon lekk ba muy wax walla jox nañ ma duma ko mës sa plainte ci àddina ndax man ñemewu ma gàcce. Mhm. du ma dem jàkkaarloog police di fen naan leen daf maa tuumal lii te du dëgg. du ma def loolu kenn jaralu ma ko. waaye daa fekk ni ka muy wax moo ma jox xaalis sax man mosumaa teg ak moom loxo ci àddina ñamuy wax ñoo ma jox xaalis mosumaa toog ak ñoom ñu ma jox xaalis. baaru 3 millions yi. waaw loolu nag laa bëggoon a setal léegi mu wan sénégalais yi ni du dëgg damaa bëggoon buzz wala damaa bëggoon siiw moo tax. mu leeral ko loolu rek a taxoon ma pelent waaye te ñu lu woon intention pour def ko dara na ko leeral rek. Mm-hmm. ndax génn wax ni. dañ maa jox xaalis baatu xaalis bi mu tudd moo saa sensible te bëgguma kenn di ma dend la yooyu. moo tax ma moo tax baal naa ko ci xol bu sedd guy plainte bi loo tax ma dindi ko mm-hmm. waaw. bi nga ko dindee sénégalais yu bari aussi tamit sant la ci gërëm la ci benn ci man parce que yaakaar naa ci sama émission laa la woowee nga ne man lépp lu ma jàppoon bàyyi naa ko bi nga ko dindee après ban jàngat nga ji def. waa non bi ma ko dindee plésir la loolu doonu du plainte boo xam ni tey amaana bu dëgëroon ndax tolloon naa foo xam ni bu dëgëroon bañ a génn ni am grandeur ni dama doon wax lu dul dëgg dama ko doon soo bisee dama ko doon def lii pour tuumaal ma tuuma bi gën a yox amaan dinañ yegg fu sori mais ndem teel naa génn am grandeur ne man li ma doon wax du dëgg coow laa bëggoon biru laa bëggoon sama mag laa sama lii ma baal ko moo tax baal bi du dara teggi tuuma la woon rek. Mhm. mais bu ma saaga woon du ma ko pelent bu ma xasoon du ma ko pelent waxaloon lu ñaaw du ma ko pelent mais tuuma ci xaalis boo xam ne du dëgg te jegeewu ma ko jegeewu ko defuma ko ngir xaalis loolu moom ma ci métti woon mhm. ay ci am na solo ah tey nag wax dëgg yàlla moom <laughs> comme lii at mi benn yoon laa koy am moom <laughs> moo tax ma profité jël sama temps rek am njaay indi Diop am njaay indi Diop euh, euh, naka nga gisee fi may jeexalee euh, président Diomaye ak Sonko premier ministre ci gouvernement bu bees bi nga xamante ni teg nañ ko fa yéene liggéey Sénégal. waaw sénégalais yi ñoom la ñu wóolu ba teg leen fi. jaam nag dangay ngay nangu ndogal. yàlla na leen yàlla defal jàmm. defal leen tawféex ndax seen réusite mooy réussite du Sénégal man li ma yaakaaroon ci Amadou Ba. bale nañ ko voteel nit ñi loolu lañ yaakaar ci jomaay ba ne nañ ko voteel ndéem ñoom nag loolu lañ yaakaar ci jomaay ba voteel ko man li ma yaakaaroon ci Amadou Ba ba voteel ko man li ma yaakaaroon ci Amadou Ba antuwul Amadou Ba faluwul jomaay lañ fal kon dañuy ñaanal jomaay mu am jàmm am tawféex gouvernement bi doxal mais man laa la wax politique leader Lat Diop laa ci am. Mhm. sama waxi dem mooy sama waxi tey. Lat Diop mooy sama leader en politique mooy sama patron ci politique. moom kese laa àndal. man nii Amadou Ba nii Macky Sall nii Sonko nii kenn man li leader bi ma am mu doy ma mu may wax may def mu naan man nii kii moo baax moo baax ma xam parce que moo ma won lu tax ma gëm ko moom. ba keroog gis nga ni taalibe di gëmam sëriñam mu wax ko lu mu ko gëmee. man Lat Diop loolu la ma wan ba ma gëm ko ci politique xam ban façon nit la may wan may gis muy def may gis ma gëm nit kii am na lu mu doon ci réew mi moo tax fu mu joxoñ laa joxoñ tey jii laa la wax bu ne woon bërit ne bu sa ay ci sa jomaay maa ko fay njëkk toog di ko xaar kon loolu moo lay wan ni man moom rek laay topp. d'accord mais ñu gis ni aussi tamit Boucher léegi wax dëgg yàlla euh, ku wax Boucher wax innovation bi parce que bu baasee li nga xam ne defal nga ko say wayjur defal nga ko sa soxna ah ak ñi ngay àndal mais dañu gis fan yi ci sa ces plateformes ay restaurant euh, ah, yoo xamante ni vraiment daa mel ni sax li ci des bareetul keroog maa ngi ko gis ah. lan moo la poussé nga investir loolu ci réew mi. waaw loolu nag euh, man moom laa lay wax. ginnaaw ma yàlla dimbalee ma def li ma war a def yëpp. damay jéem a dimbali doomu aadama yi man mënoon naa toog nii rek bu ma toogee damay am xaalis man li ma liggéey Amérique mosuma koo yàq barki Serigne Touba man dama doon liggéey trois liggéey ñi may tëgg amerique xam nañ li may wax 116 bi yëpp xam nañ trois liggéey laa doon liggéey bi may liggéey trois liggéey li ma doon am yëpp dama ko doon denc man benn du ma jigéentu duma caaxaan du ma foo jabar bi ma njëkk am moom laa takk caaxaanu ma sama xaaj dama koy denc dinaa maye di dimbali nag jigéen bu ma romb ñaan ma dama lay may jigéen morom mais du ma def comme yi booy def du ma tux du ma naan soirée Pape Diouf laa dem ak Sidi di du duma dem ay discothèque du ma dem fenn taluma ko sama xaalis bi ma jotoon liggéey dama koo denc bi ma ko dencee damaa ñëwaat fii mu yokku trop macha ndax sponsor yi ñëw nañ di fay xaalis bu bari <laughs> euh, publicité yi ñëw nañ di fay xaalis bu bari may sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax hmm. muy yokk gis nga ma nii dëgg waaw yaa ngi baax chaque jour barke sëriñ Touba mën naa sol costume africain bu bees wala Getzner grand boub bu bees wala euh, Abason Zo bu bees wala Sunshine bu bees Getzner lay nekk fii ba 10 ans yëre bu ma sol du ma ko solaat. gaara sa war waay baax ci billaahi wallaahi taalaahi yooyu nag mayu yàlla la loolu ndimbalu yàlla la yàlla mooy gis nit xolam rafet mu baax mu dimbalee ko nangam te loolu la ma yàlla teralee. Mm-hmm. ba pare dimbali ma ma root lu bari di ko rogalaatu nag nit dangay ñaan muy metti mm-hmm. di neex neex neex neex neex. Mm-hmm. ba neexee xeex. waaye munu ñaanoo muy metti metti metti metti metti metti metti metti rek. da ngay ñaan muy neex muy metti metti deux neex neex neex neex neex falaa toll te day gën a neex. moom restaurant bi. restaurant bi nag maa ngi lancé appel sénégalais yëpp restaurant Sénégal yëpp la Chez Ketchup léegi mu ubbi Ouest Foire la nekk. Ouest Foire ci kaw tali bi mooy Samba Bonavita kende bi. ci kaw tali bi la nekk Chez Ketchup damay wane maquette bi tuuti rek. ngeen. ñi nga xam ne. professionnel nañ. ci wàllu cuisine ñi professionnel ci wàllu cuisine laa wax. mën a togg parce que day jaay añ day jaay fast food day jaay ay plat américain yu neex. Hmm. am naa ci kaw salle VIP am naa terrasse ci biti. léegi ku bëgg liggéey te ñeme ko te mën a liggéey bàyyiwuma kenn na ñëpp ñëw. restaurant réew mi la. indil sa CV. sama numéro mënu ma ko joxe fii. Hmm. mais yow guy gi yow ku la woo. ku guy gi yow ku la woo. ci numéro boobu di daw foofu. bi Dakar people bi. Hmm. ku la woo. maquette baa ngi nii gis nga. waaw. baa ngi nii. nii la restaurant bi mel. Cheikh gis. Hmm. ma wan leen ci biti ni muy mel ci biti nii lay mel ma xool euh, ci biti nii lay mel gis ngeen ay parasol ci biti mm-hmm. oh, mooy terrasse bi ah, ni mel waaw nii lay mel oh. incha rab rabbi dans quelque jours dina ubbi minimum parce que instant euh, bi nag ouverture bi sama leader laay xaar mu libre mooy Pape Diouf. dafa am ay date Angleterre te kooku bu ubbi restaurant bi restaurant bi du ubbi. te moo war a ñëw. Mm-hmm. ubbi restaurant bi. Mm-hmm. ah invité naa ñëpp nag su bay su su demee booy ubbi dinaa ko mais fi mu ne dañ nekk ci période euh, recruter. recrutement. waaw waaw parce que tamit yàlla bu la dimbali da ngay dimbali. Hmm. ay nit mooy li may rek. yàlla da lay dimbali. nga am ñoo dimbali ñooñu am ñuñ dimbali. ñooñee tamit am ñu dimbali dimbali dimbali dimbali. <laughs> loolu àddina. Hmm. léegi recrutement ku la woo fii. yor CV bu baax. waaw na la ko yónnee parce que incha allah roy buñ ñu korité ba pare dañuy def benn stage. waaw stage bi ci restaurant bi lay doon. Hmm. ñi mën a togg dañuy ñëw ñu teg ndawal li teg lépp ngay togg ñuy xool. ñi mën a defar tacos defar ko ñi mën a defar fas euh, shawarma defar ñu xool. ñi mën a defar burger ñëw. ñi mën a defar pizza ñëw. surtout tacos ñi mën a defar dibi ñëw. ñi mën a togg ceebu jën yeeg. day am ay yaasa. Mhm. te man nag samay samay mbir dama leen koy wax tey fii laa koy waxee. pizza ñaata lay jar. Fadam. pizza ñaata lay jar. 4000. pizza 4000 lay jar. bu ndaw bi ak bu 6000 man bu mag bi 5000 laa koy jaayee bu ndaw bi 3500. ndeysaan. burger ñaata lay jar. 1500 2000. 1500 man maa ngi lay jaayee burger 1300 sama place ceebu jën dégg naa plate 2500 la xaw ma 3000. bu dee 3000 man 2500 laay jaayee bu dee 3500 bu dee 2500 2000 laay jaayee maanaam man lu nit ñi di jaayee ci bedd mi. man dinaa ko wàññi dara darajay Serigne Touba soxlawuma bénéfice bu bari. kon de xanaa bi ma gisee am na benn patriote bu doon def benn vidéo naan Boucher dafa war a dem andi sponsor yi jëlee leen États-Unis indi leen fii Sénégal. loolu loolu loolu kooku dafa dafa baax rek. waaw daa baax. yitteem waaw mais ñun ñu ngi ci yeneen yoo xam ne moo raw loolu. Mm-hmm. nañ noppi rek ubbi seeni bët di xool. Mm-hmm. dinañ xam kuy liggéey kuy wax du benn en tout cas samay mën yu man. lu kay di jaay deux mille mille cinq cent laa koy jaayee. Hmm. samay menu waaw. Hmm. incha allah. Aïcha mu ngi noonu ah ma koy jaajëfal bu baax a baax a baax <laughs> alaaji Kacob sama xarit la nag wax dëgg yàlla damay gis ni à chaque fois bu ma ko woowee rek euh, du ma bañal dara na nag tey ma ñëwoon fii ji Jinaan doon siyaar jékki-jékki romb ko fii nga xam ne mooy Cheikh Baye Modou Kane Masata ak Masayer mu nangul ma lii aussi tamit ma koy jaajëfal bu baax a baax alaaji maa ngi lay siyaar di la euh, wax kàddu gu mujj mais restaurant bi nag am na ñuy commentaire nii naan Fadam moom xam naa ni boo teel jël sa garde ci moom. <laughs> non Fadam mooy restaurant bi. <laughs> Fadam déjà. restaurant bi moom am na fa benn plateau. waaw boo xam ni. képp ku muy invité ci làmb wala képp ku muy invité ci showbiz. foofu ngay ñëw toog ci resto bi ñu tegal la jus tegal la lépp. mais ñun nag. yéen tamit. bu ñu amee invité bu jege kay mën nañoo ñëw. Cheikh Ketchup maay sponsor. waaw man nag restaurant bi day sponsorisé. très bien parce que Cheikh moom day ñëw pour pour pour pour pour libérer pour ñëpp. ñëpp laay sponsorisé ku am sa. sa sa sa sa invité indil mu toog ci restaurant bi nga tegal ko añ lekk reer lépp mu wax li muy wax bu paree ngeen dem mu dem parce que loolu mooy mooy loyalité mooy mooy mooy partagé yaa am ko mais restaurant bi daal restaurant wu àdduna yëpp la Ouest mm. Foire la nekk incha allah léegi incha allah mu ibbi bu neexee yàlla ak yonent bi mm. sénégalais yëpp gis seen bopp mm. te maay dàq ceeb maay dàq hamburger waaw parce que li hamburger yi nekk amerique laay indi fii. Mhm. menu yi crémañère yi laay indi. Mhm. organes yi niñ koy defaree foofu liquidité yooyu laay indi waaw. Mhm. produit yooyu. maa koy dem di jëli di ko indi. dinaa dem Angleterre tamit découvrir yeneen lekk. dinaa dem Autriche découvrir seeni lekk. ñaanal leen ma rek yàlla dimbali ma ndax yemul ci benn. bii mi ngi nii léegi mu pare mais am na beneen boo xam ne ñu ngi ci daal. incha allah incha allah ay jàmm mi ngi noonu mu a baax leen jox dig daje ma lay jotale nuyoo nag borom Nicoro Nicoro Nicoro Grouard <laughs> Idi. <laughs> Idi waaw Nicoro Grouard xanaa. Idi maa ngi leen di ñaanal jàmm. Idi waaw di leen ñaanal tawféex. pour l'instant conseil bi ma leen di jox rek mooy euh, ñi nga xam ne fii dañ fee bàyyi njaboot. Mm. nañ leen di gëstu ba pare seen njabooti di leen comprendre. ndax foofu dafa xaw metti te Nicaragua. man Idi daf woo di ma ab ay 5000. dëgg la Nicaragua ku fa ne. fi ne nii du neexagum. Mhm. parce que Amérique dafa nekk dëkk boo xam ne boo amul këyit. Mhm. day xaw a metti tuuti. Mhm. mais boo amee këyit rek lépp jeex te foofu seen këyit yombul. surtout ñu jaar si Nicaragua bi kon na leen seen famille fii di comprendre. xale bu fa nekk nag. amoo jabar amoo doom amoo dara. jéem faa fonde sax di gërëmaat Lat jóob bu baax. guy gi maa ngi gërëmaat Lat Diop di gërëmaat Lat jóob di gërëmaat Lat jóob di gërëmaat Lat Diop di nuyu Lat jóob di ñaanal Lat jóob di ko sargal di ko tatagal di ko ñaanal di ko yëkkati guy gi Lat Diop awma ci moom sago je l'aime tellement que man Lat jóob damay toog ba ci yàgg di naan man kii est-ce que Boucher la mm-hmm. dama ko bëgg ba gëmewuma ko man Lat Diop mu bañ a doon dara moo ma gënal mu doon dara bu bañee doon dara ci laay gën a nekk à l'aise di mën a wax ci moom. Mhm. bu doonee dara rek xam nga Sénégal dafa yàqute àdduna dafa yéeme. Mhm. bëgguma muy doon dara. Mhm. nii bëgg naa sax muy doon dara lu baax mais man sama xol damay bëgg mu bañ a doon dara sax may wax ci moom. dëgg la. mais yàlla dina ko defal tawféex ba lépp lu mu bëgg ci àdduna yàlla dina ko defal. awma ma fayam. amiin maa ngi koy gërëm di ko ñaanal jàmm. sama ànd ak moom nag ku mu neex baax na ku mu neexul yaa xam. bugguma dégg dara lu négatif ci moom lu baax rek laay dégg ci moom ndax lu baax la ma woon di gërëm jabaram madame Diop di ko ñaanal jàmm ko ñaanal tawféex nit ku baax ah doomam maa ngi koy ñaanal yàlla may ko wér guddal fanam mu màgg. Hmm. xaadimu rasul xam nga taawam xaadimu rasul la ko tuddee. incha allah rek la bëgg. kooku lu baax rek la war a wax ci moom yàlla na yàlla guddal fanam. Matar Diop suba teel. waaw maa ngi koy ñaanal jàmm. lépp lu mu bëgg yàlla defal ko ko. yàlla may ko wér. yàlla guddal fanam. yàlla defal ko tawféex. jabaram Kia ak doomam Amir. yàlla may leen ndam. di nuyu Birane Ndour bu baax di ko ñaanal jàmm. kooku dama naan nit ñi ñoo ma bëgg di ma choisir waaye man maa ko choisir Birane. moom dama ko choisiral sama bopp. kooku moom c'est mon choix de cœur de de di ñaanal jabaram Mina ak ay doomam yëpp. Mhm. di leen ñaanal tawféex Birane maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaare ah la Baas. Mhm. maa ngi koy ñaanal di ko may ñaanal gudd fan ak wér. tawféex taysiir ndam ah Pape Diouf moom su ma koy gërëm mën naa fee jooy ndax nit la koo xam ne man mooy sama wéeruwaay. Pape Diouf sama lépp la. Mhm. Pape Diouf sama papa la. man du ma wooye benn doomu aadama papa ci àdduna Pape Diouf laay wooye papa. man Pape Diouf mooy sama papa. man sama papa doy na ma sëkk baay. nekk sama lépp ma fier ci moom. Hmm. mais Pape Diouf laa ñemee wooyee papa ci àdduna. parce que moom moo ma woon ji koy bàyyi. Pape Diouf moo may moo may Pape Diouf moo ma def ni maanaam daf ma def daf ma yëkkati daf ma teg fu kawee daal. def ma doom def ma lépp sens interdit zéro. Hmm. jabaram def ma doom ah mu nekk sama lépp bébé baas. Hmm. ma bëggal ko sama bopp xam nga. ñaanal ko jàmm ñaanal ko tawféex man du ma lekk fenn kër Pape Diouf kër Matar Diop Subatel. Mhm. bee baas ma joxul lekk ami ma lay mu ñoom mu Matar Diop Subatel moo may jox lekk. Mhm. dew ma fenn dikku ma Badara Gajaga maa ngi koy nuyu sama patron sama xarit. Mhm. koo xam ne su ma li may communiquer nii te yàlla ak moom la. maanaam su may communiquer rek moom laay dégganteel balaa maa communiquer. ma tuddee ko ministre de la communication ak porte-parole du gouvernement xaw ma ban lay doon mais dina ko nekk parce que moom moo ñu mën a jox li réew mi attan ba Badara Gajaga maa ngi koy ñaanal bu baax di ko nuyu borom sañse yu rafet yi ndaanaan bi ah maa ngi lay siyaare borom jàkkaarloo jàkkaarloo yaa tax ñëpp di ko seetaan Badara kon yàlla na yàlla guddal sa fan di nuyu nag sama nit ñëpp Aziz Ndiaye sama xarit maa ngi koy nuyu bu baax ah Baye ah Masata ñëpp maa ngi leen di nuyu. di jaare Fadam sama xarit di ko mm. nuyu bu baax a baax a baax sama wóllare di ko ñaanal jàmm. Mm. parce que bari na ci yoo xam ne tey eh, bu ma nee bëreet mu naan ma dee calme. la nii lay demee nii parce que nit ki àndal ak koo xam ne tey. day wax ci yow lu baax di def ci yow lu baax. te mm. Fadam yàlla def na nit ku baax la ko bëgg lu baax. maa ngi koy nuyu bu baax di ko sant di ko gërëm. di ñaanal ñu ñu ngi leen di jaajëfal di leen